mbokk yi kon ñu dellu ba tey bàyyi xel ci loolu ñu doon waxtaane rek ndaxte loolu di bokkaale am na ay lor yoo xam ne si mën na koo lor jàmbi ba ca jëkk mooy da koy yóbbee ay àddina ak àllaaxira day takkoo aw ay àddina ak àllaaxira comme jàpp na ni kenn ngi def lenn rek ku dul yàlla lépp lu mu def rek ci njàqare lay dëkk talu tàggoo ko ay ndaxte fooful mbir yi jébbal ko suñu borom waaye dafa am feneen fu mu koy yaakaare foo xam ne nekk fa moo tax dem du tàqalikook aw ay àddina ak alaaxira bu ñaareel mooy bokkaale mooy sabab bi gën a màgg ci li xusulil kurbaat yi mu bokkaale waa daa doo dañ te gëm nga ni yàlla kenn la fop mbir yépp wakkil ko ko da xam ne li nga xam ne sii war nga koo jot kenn mën la koo xañ li nga wartaam itam kenn mën la koo jox ku dul yàlla kon su ko defee soo ko xamee daa daan noppalu bu ñetteel ba mooy ashirku yusabibul xawfa wa yasiwul am na fi dunya wal bokkaale day tax nit ki day tax nit ki fu mu nekk day nekk ci tiitaange ndaxte lu ko dal mu yaakaar ne dafa am kookoo teg ku yàlla te kookoo tim du am maam kóolute benn yoon fab mbir yi jébbal ko yàlla daal loola daal nga xam ne fii saa soo xëyee ngay def sabablu la la war wante la ci nga xam ne fii loola dal nga xam ne yàlla loo am nga xam ne yàlla loo ñàkk nga xam ne yàlla yàlla nag mën naa am loo xam ne sii maanaam du caage dañ ne yàlla rek mooy yëkkati ci loxoom jox wante mën na koo jaarale feneen wante nga xam ne lay sabab ba rek lay mbir ma dëgg-dëgg yàlla mooy amal mooy ñàkk loo soo amee nga sant yàlla soo ñàkkee nga muñ te xam ne lépp ci suñu la jóge waaw bi ci des ñoo xam ne fii bokkaale day waral nit ki nekk ci réer gu biir goo xam ne fii maanaam du ca jóg maanaam su ko moytandikuwul mën na koo deewaale waaw mu ni ndaxte yàlla mooy inoo man sukk billaahi faqat dalla dalaan bayi daa képp koo xam ne yaa ngi bokkaale yàlla yaa ngi ci réeraa goo xam ne réeraa gu sore sori la bi des mooy li ci gën a bay itam mooy lañ leen waxoon léegi ne shirkul akbar day yàq ay jëf wala shaku la habita anum ma kaanu yamaluun yàlla moo ñu wax yàlla neen su ngeen bokkaalee nit ñi suñ bokkaalee lañ doon def lépp day yàqu comme la ñu waxoon ci njëlbéen ga rek loolu mooy shirkul akbar nga jéem a jaamu keneen ku dul yàlla wante nga xam ne li mooy shirkul akbar nag ni mu amee noonu la shirkul asxar am shirkul akbar moom dañuy wax ne day tax nit ki su ko deewaalee mu dëkk sawara du ko génn dañuy wax ne nit ki su ko waaye di du jaagee ni sirkul akbar da xam ne da yàq ay jëf moom wante sirkul asxar du yàq ay jëf mais moom jëf ji la yàq si jaa ngi jàpp ne war ngaa jàmm keneen yu dul yàlla yooyu day yàq jëf ji yépp moom tamaaman mais sirkul asxar nag moom bokk na ci li ñuy wax ngistal ndaxte am na adit boo xam ne si ñu nga ko ñu maam Mahmoud ibnu nee na moom jël na ku axwafu maa xaafu aleykum ashirkul asxar fa su'ila fa qaala aryaa nee na yonent bi sa wax ne li gën a li ma gën a ragal ci yéen mooy mbokkaale gu ndaw mbokkaale gu ndaw ñu ne ko mooy lan mu ne mooy bokka mooy ngay ngisal nit ki def dara di ngisal ku ñu wax Shaddaad ibn Aws wax na kunna an ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa ashirkal asxar aryaa Sadaad ibnu Awsu wax na leen nun ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liñ jàpp woon muy bokkaale gu ndaw mooy ngistal ndaxte ngistal mooy itam mooy nit ki di def dara ci jëf yu baax walla muy wax ay wax yu baax fu mu toll di def lu baax wala muy wax lu baax wante seeni wujjat yiwu yàlla seen wujjat fayu yàlla lim ci bëgg mooy nit ñi naw ko ci jëf jooju muy jëf wala ñu naw ko ci wax jooju muy wax nga xam ne si wax ji yépp yàlla taxul ngir sala ko tax a jóg kooku lañ koy tudde mooy itam shirkul asxar mooy bokkaale bu ndaw ndaxte comme yow yaa ngi jàpp jëf ji yaa ngi koy def di ci bàyyi xel keneen ku yàlla rek ba tey yaa ngi ci bokkaale wante nag moom nee du tax nit ki dëkk sawara te du yàq jëfi doomu aadama yi jëpp wante jëf ji ci boppam ji nga doon jëf damaa na ngistal loolu la jëf ji di yàq jëf jooju moom mooy yàqu te kenn ku nekk nag yaakaar naa ni war fexe ba la ngay jëf mu néew mu bari dara dara dara bañ caa yàqu benn bu gën a néew rek lu ko yàq nga ko loolu même nit ki nga xam ne fii mi ngi fob alalam di ko def ci yoonu yàlla wala mu koy sarxe wala muy dimbali néew ju doole yi wala muy dimbali malade yi wala muy jëndi ordonnance wala muy def yu baree baree bari wante bi mu koy def yépp itam li mu jublu mooy ngir ñu tàggoo ni ah diw de ku tabe la diw de mi ngi def nangam diw mi ngi def nangam loolu dinañu wax ne ngistal la ki def jëf ji soo neppee bàyyi rek yàlla gis na ko wante defal nit dara walla nga waxal ko wax ju baax wala nga defal ko wax jëf ju baax te jëf joojee su doon jamono yi léegi ji nit ki maanaam soo déggante ni dañ ko invité ci télé yi benn plateau wala dara mu nekk fa ba jóge fa te waxul jëf jëm ko defal rek su ëllëgee nga ne nga ne diw de duum ko defal dara ndaxte bër gi dem dégg naa ko ñu ngi ko invité toog na lu ma 30 minutes wala une heure naa di wax wante la ma ko def sax tudd ko kooku ku soxor la déedéet yow jëf ji soo ko defee yàlla mi tàng koy def gis na ko wante nag def ba noppi boole ci saw làmmiñ di wax loolu moom du jikkoy gor du jikkoy julit wante nag bokk na ci jikkoy gor bokk na jikkoy jullit suñ la defalee lu baax itam yooyu itam ngay wax lañ la defal ki def jëf ji moom bu am soxla ci jëf ji bu mu bëgg ko wax bu mu ko nettali bu mu ca def dara na ko bàyyi yàlla ma ko gis wante nag bokk na ci jikkoy gor itam yow miñ defal lu baax nga koy net li wa ama bi nimati rabbika fadis day jàpp ñaari côté kii mi ngi koy net li ci alal ji nga xam ne yàlla jox na ko mu ñuy def lu baax ngir jëm yàlla kon wa ama bi nimati rabbika fadis moo ngi koy feeñal foofu wante yow mi nga xam ne siim sa kàttan àggul foofu ba ñu ngi lay dimbali nga jë nga sant kooku gërëm ko xëy na nga wax ne diw def na lu baax di wala ma nangam loola tim dara nekku ci wax dëgg yàlla lu baax la ndaxte nit ñi moom dañuy wax ne def lu baax baax na lool wante di la defal lu baax itam nga koy nett li baax na lool am na benn jàngalekat alxuraan bu baax ndeysaan bu dëkkoon ci boori daaru mooti koo xam ne dundam bépp ci alxuraan la ko def ñu koy wax sëñ ma sii di loo am na mu yor daara am genn gan gu fa di galati ko ko sant ñang ndeysaan bi mu ko ganee am fay fan ba muy dem mu woo ko jox ko ay tilaanga yu bari ci néegam ne ko waan lii ma la jox nag man yow yàlla dong bu ko keneen dégg góor ga sant ñang dani ko sëñ maxtaar xanaa yow da ngaa bëgg ma deefar benn yoon mu ni ko ndax lan mu ni ko nga jëm jëf ju baax ji di ko def ngir jëmmi yàlla ji nga defaloo lu baax lii te ne sama lam yu bu mu ko tudd kon kay mën nga maa bàyyi ma farfaatu fii benn yoon rek mu ni ko ah kon de loolu yaa xam wante man bëgguma nga wax yaw nag soo ko dee wax man du la ko tere waaye daal du ma la digal nga wax ko te eh, su ma sañoon da mu yem suñu diggante kon nga baax nga wax ko wàññiwul dara li bon mooy yow miy def lu baax nga def ko ba noppi di ko damoo wala nga cay ngistal wala ki nga ko defal su la gërëmul wala mu nett li ko ëllëg feneen nga bëgg koo mere wala nga nga dagg la nga def bokk na ci ngistalatim yow mi nga xam ne yàlla dimbali la ba nga jàng dara lu mu néew néew nga xam dara lu mu néew néew loolee nga taxaw ci kanam nit ñi di ko wax te ba nga koy wax toog sa kër jël lu mat ñetti fan wala ñeenti fan di bind di sonn fenn fu ne nga sufa lépp ngir bëgg a taaw ca kanam nit ña wax ko wante la nga jublu ca kanam nit ña lépp ñu ni ah diw de waxam ci ni mu amee solo diw de yor ci xam-xam diw de man xam naa yée kooku de kenn rawu ko moo fi dàq waxtaan kooku su waxee nit ñi bég ah kon day mel ne kooku yow itam sa xam-xam bi sàkku ko ngir jëm yàlla soo dee wax dangay wax li wëcc laahi nit ña dégg jariñu ñu di jariñu ngir jëm yàlla wante toog sa kër pendant trois heures temps wala une semaine di bind te lépp jubluwoo ci dara lu may soo taxawee ci kanam nit ñi ñu sant la gërëm la koo taseel mu naw la léeg-léeg nga taseeg nit sax di ko xool ba xam dana la wax ci waxtaan wa dara am nit léeg-léeg sax yow itam nga naan ah man di diw laa xam naa ne ku soxor la sama waxtaan wi di bañ tasee ci dara la néew ma na néew ma neex na néew ma dara kon yow bi ngay waxtaan yàlla taxul soo dee waxtaan da ngay wax ngir jëmmi yàlla soo dee def da ngay def ngir jëmmi yàlla da def ngir jëmmi yàlla ci sa alal ji te xam yàlla def na gis na ko ka ngay defal moom nag su yoree làmmiñam di wax fay laayam du wal min na wante bul ko ca mere ñàkk gaa wax wante yow mi am xam-xam itam da ngay wax ngir jëmmi yàlla ja ak ngir jëriñ bindaa wone yàlla yi ak ngir am ab yool ngir yàlla wante bul taxaw mukk ci kanam nit ñi di wax ngir bëgg ñu naw la ngir bi ñu ñaa ah diw de boroom xam-xam la diw moo fi gën a leeri wax diw su dee wax la muy wax dañ koy may dégg fu ñu waxee ci yow nga bëgg lay yëkkati bëgg sa moroom meneen ma nga xam ne dañuy wax suñu waxoon ji moom sax wax ko ci moom lu ñaaw daf gotti ko kooku mën ta wax la nga ne ah kooku day wax dëgg yàlla moom day jàmbaar la góorgóorlu de wante xam naa yi laam yu taw koo xam naa yër na de wante nag xam naa xam-xam di taw koo àgg foofu yooyu yëpp itam yëf yi ngistal la ak yëfi soxor kon nag nañ bàyyi xel bu baax a baax xam ne fii lii ñuy def ak li ñuy wax lépp am nañ malaaka yoo xam ne kiraaman kaatibiina la te yàlla moom laa yazubu anu misxaal sarra dara du nëbbu ci moom li nga def lépp leer na ko su ko defee ñu bàyyi xel bu baax a baax xam ne fii àddina bii ab jaaruwaay la balaa ëllëg dañ fiy jóge am na ñu baree bare bari ñoo xam ne si ñoo ñu fi jiitu woon jóge nañ fi te seenu jàmbari jëlee wu leen fi nun ñu fi nekk sunu jàmbaari wuñu fi yàlla bàyyiwuñu fi ngir dara lu may ngi jaamu ko ku def leneen lu jaamu yàlla yaa ngi perte Seyxul di wax nañu ko fi léegi nee na soo dégg yaa ngi wutal yàlla ndend wala ngay bokkaale wala ngay bañu jaamu yàlla na la wóor ne yaa ngi ci xuru perte te ko wàcciwul ci tawara lay gindi laatu ko billaahi yaa xiwaani li annoo yahdi ila niiraani nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax xam ne àddina amul solo balaa ëllëg rek lépp nit li de moo ci def fa innamal maru hadiisun ba'dahu fa kun hadiisan hasanan liman wa'a nit ki balaa ëllëg ñu koy nettali sun maam yeeg sun bàyyi yépp jaar nañ fi jàll nu tam nañ fexe ba rafetal way ne balaa ëllëg ñu ñuy waxtaane soo ko soo xoolee ci loolu tax ci la ñuy jaar ndokkeel wala ñu jaar ci turu ci ñu jiital ci njaal mi muy alimaam imam Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy al imaamul akbar ñu ngi koy jaal sëriñ Basiiru Jaañ mi nga xam ne sii moo fi jóge te nekkoon yàlla defoon mu nekkoon ku jàmbaare ci liggéey bi ku nekkoon ku ràññeeku ci liggéey bi ñu ngi koy jaal Cheikh Mouhamadul Bachir Lo di ko jaal al imam docteur Ahmadul Khadim Lo mi nga xam ne sii mooy naayibul imam di ko jaal mboolem jumaa ji ñépp nag di ñaan yàlla jéggal ko yërëm ko tasale sayxul xadim tase koog yërmaanam ja nga xam ne fii moo gën a yaatu lépp moo te lépp xañ na ci yàlla na yàlla jéggal ko yërëm ko ñu koy jaay itam jëwrin ki nga xam ne fii moom la fi yàlla teg muy sëriñ yu mi seriñ bi wooru ba teg ko ci jëwrin ji yàlla na yàlla ko may ko ndam ci liggéey bi nga xam ne mi ngi ci sëriñ basiru jaañ moomu ak mbokkam ya ko fi jiitu woon yépp muy ku mel ne sëriñ bàyyi sëriñ comme diwaanu muridin allah njegey ak ñooñ ñi nga xam ne ñëpp mii nañ leen ci liggéeyal sëñ bi taxawu liggéey bi yàlla na yàlla yeesa la maa yërmaandeem ak njëggalam ci ñoom ñëpp su ko defee lii daal mooy li nga xam ne sii moom lañ doon waxtaane lépp loo xam ne sii jum na ji ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax baax ndaxte du suñ kàttan du suñ man-man du xam-xam lépp ci kàttanu suñ borom la ak man-manu suñ borom lépp loo xam ne si dëng na ji ñu ngi koy jégglu te xam ne ki doon wax ab jaamu yàlla la bu doyadi te xam-xamam guddul te njuumte da koy dab fàtte di ko dab in uritu ilay islam masatatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu allahumma abdika nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa